rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ñu di ko nuyu di ko ziyaara ci guddi gu tedd gi mu ne ku fi nekk ci mbooloo mi na jàng fatiha jàng suuratu Quraysh jàng falaxi ak naasi jàng salaatal fatihi ñu tijjee ko jataay bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ما ظهر منها وما بطن هذه السبحات التي قدرها ملء الميزان منتهى العلم ومبلغ الرضا تلك السبحات قد صبت على آنيتك النبوية وقد أعطيت منها ما فيها الكفاية عادة لا نقصانا أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق يا الله يا رسول الله السلام عليك يوم ولدت والسلام عليك يوم أصابك الموت واجبا لا شرعا والسلام عليك في وسطاها والسلام عليك في ظلمتها إذ يسكنون لها أكرم بظلمتها أكرم بسكنها yaa rasulallah assalaamu alayka maadaama alleylu yaxsha wa maadaama annahaaru yatajalla wa maadaama arrabu xalaqa aldakara wal untha yaa rasulallah assalaamu aleyka ida shamsu kuwirat wa ida nujumu nkadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida alishaaru uttilat wa ida alwuxuushu xushirat wa ida albixaaru sujjirat hmm? wa ida alnufuusu zawwijat wa ida almawuudatu suhilat bi ay dambin qutilat wa ida alsuxufu nushirat wa ida alsamaau kushitat wa ida aljaximu suirat wa ida aljannatu uzlifat kon nag alimat nafsun ma axdarat ya rasulallah xaqan أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا لكن قد أتى أيضا حين من الدهر لا يذكر جل جلاله وعز كماله إلا وأنت تذكر معه وهكذا أصبح السلام يفتخر كلما صلوا عليك أو سلموا تسليما وهكذا أصبح طواف السلام يدور حول كعبة fiiha nabiyuuna wa siddiquuna wa shuhadaa wa saalixuun ma yusaddiq anna duxulaka ala salaami almursaliin duxulu unsatin la gayra يا رسول الله السلام عليك مع كل سلام أتى به القرآن جملة وتفصيلا لقد اختارك لقد اختارتك السيادة اختارتك السيادة واختارتك الإمامة قبل أن تختار أي منهما فكنت أنت السيد الرسول وسيد سادات بني الجنس kon nag assalaamu aleyka awalan wa axira يوم الأحد تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته assalaamu aleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ah. ay kilifay diine wa tabaarakallahu ñiy jóge ci famille yu mag yi moo mel ni tariqa yi ñu yaakaar bu ci nekk am na ay sang yu fa jóge ah tariqa murit ca Tuuba ah sunu góor ga Sëriñ Muntaqa waxuma ni def na participation bu mag na mu ko daan defee eh waaye itam boole na ci doomam bu jigéen mu may ko mu ñëw gànni gàmmu si ak ñun waaw di ko nuyu te di ko sargal di nuyu itam ah soxna Amina Lay di soxna ci Mohamed Lamine Lay ci tariqa Layeen ñu woon na fi daaw yàlla dogalit mu ñëwaat ren ànd ak ay sëram ànd ak ay cousinam ànd ak ay xaritam ñu ñëw wuy si yaay waaw mu mel ni itam ñu baax ñi toog ci sunu côté yi bokk min ahli shurafa wa tabaraka ah tant bi lew na leen ndax nekk gi ñu nekk sët ci yonent bi ndax sët lañu ci Seydina Cheikh ñu di leen nuyu ñoom ñëpp wa tabaarakallaahu sama mbokk mu baax ma sëriñ Bachir Abdul Qadir Mbakke yónnee na fi participation boppam bu bokkul ak bu xalif bi te ca enveloppe ba mu bind ci muhibbukum waaw xanaa seen soppe waaw mu mel ni li góor gi daan wax ko sopp rek sopp na la ah mu mel ni sëriñ Mouhamadul Mbacke Abdul Wadoud mu ngi yenu message bu jóge ci xalifa bi yeggale ñu ko mu mel ni yooyu yëpp ci recommandation yi la bokk ah sama mbokkum bopp mi Sëriñ Mahamdil Moxtaar waaw moom itam di sunu lépp ndax njaasaan gi mu jóge soxna Mareem Kunta bu sëriñ Babacar Sy kon am nañu ki yéen ay lien de yu bare wa tabarakallahu ñu nuyu itam tariqa yi fi daje yépp benn desul ak këru diine yépp may ma ma nuyu sama waa kër yi bopp yi te mooy sama waa kër yu jóge Mauritanie waaw waaw waaye tàccu leen waay ah mu ñëw ànd ak yaayam Rwanda avec une forte délégation ah mu mel ni loolu itam kenn du ko tuutal di nuyu itam njaboot yi fi deew yépp bu kenn desul que journaliste yoo xam ni shahidallah bokkuñu ci sax presse di kese kese yéen mbaan ma dañu xaw soj waaw góor gi daan na ko wax yéen soj ma soj <laughs> waaw waaye dañu di sunu wóllëree bopp mu di Mouhamed Mansour Ndiaye Mansour Diop ah, ok ah. nekk ca Sen TV ma jaral ko lu ne waaw xeex na sax ndax man waaw waaw defee ñu di ko sant ñëw na ànd ak soxna mbokk mi tam Pape Djibril Fall waaw tabaarakallaahu am ak ñun googu kóllëre teew depuis grand théâtre ba léegi yeneen mbokk yi ci des yëpp ku ci teewul itam seedeel nga sa cofeel ak sa kóllëre ci sunu diggante ak yow ñuy nuyu muqaddam yi fi teew yépp moo xam ñi jële seen ijaaza ci góor gi walla ñu jële seen ijaaza ci man te mayit ma jële ci góor gi waaw ba mu may jox ijaaza mag Mansour booba ñëwaguñu Dakar booba ñu nga Tiwaawoon maanaam ñu ngi Tiwaawoon bokk waaw wa tabaarakallahu waaye itam ijaaza bi ci kayit bi du moo ñu tax a am li ñu am waaw dama ko dégg mu wax ni Seydil Hadj Malick ak Sëriñ Babacar ñoom ñaar yëpp kenn ku ci nekk bi ngay ñëw ci tariqa Cheikh sama yu bopp nga indaale maanaam li ñu doon tariqa cheikh defu leen ko yàlla leen ko def ba noppi waaw mu mel ni kon nag loolu sant yàlla la ah ña am na lu ëpp doole ijaaza bi أتى بها سبع المثاني أسهما بحروفها حفظا لسبع مثاني way boobu mu way turandoom ci loolu mu ko sidd ñu nit fa ñu toog la ñu toog rek sëriñ Babacar sedduñu ko keroog bi ma ko ko yëgalee ni ko sëriñ Babacar jox na ma ko yëfu tukkuleer sax xaw na feeñ ci moom waaw ndax bu sañoon moom moo ma koy jox ndax yéeneem ci man waaye dañ doon jëkkante ñoom ñëpp waaw Seydi El Hadji Malick di jëkkante Serigne Babacar di jëkkante moom it muy jëkkante waaw ba Seydi El Hadji Malick gis soxna bu bokk ci daayira bi di ko romb ci ëttu jumaa ji mu jaar ci turam ni ko diw kooko gestu ko jaaxle ndax xamul fu Maodo xamee turam Maodo ni ko boo demee ni Moustapha ni ko mag Babacar moom la àndal waaw ma defe ni kon nag yëf yi ci seen biir la waaw ku nekk ak façon ba ko bëggee ba fan yi paase <laughs> moom it ma gis ko mu ni ma waxal maam Cheikh mu ñaan waaw ci barke maamam yu baax yi waaw ma ni ko ak ci barke turandoom mu ree waaw ma xam ni loolu rek la doon xaar waaw wa tabarakallahu ko defee kon nag ñi fi teew ñépp ay sang lañu ñu baax rekk ñoo fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw waaw liir yi sax dañoo gàmmu si waaw wallaay ndeysaan <laughs> ci suba dama gis ci accueil bi ay genre pétax yu ma mësul gis ci kër gi waaw ma xam ne rekk dafa am lu ñu leen yónni ndeysaan ah ñaanu Maodo ga waaw ma araada raadu والورقاء تنحب من هديلها وجرى دمع من القلم ah loolu du fi jóg indi kon nag annoncé woon nañu ma ñoom invisible yi annoncé nañu ma ni ren seen mag ñu bari duñu ñëw li ñu bëgg mooy xale yi ñëw yi nekk ay kade ñuy na ñëw ndax wéttali si ñoom maam Cheikh ñi waaw waaw wa koo wax ak moom ci waa këri boppam yële soxna moo xayri bu soxna aasi fa tabaarakallaahu am jom am taxawaay lu xew mu ñëw taxaw ñu di ko nuyu di nuyu borom këram Cheikh Oumar Kane fa ah, rakki bopp féetewoo ci tarbiya bi mu di soxna Fatima Sy waaw am yitte am jom waaw ñaari baat yu ma wax ak moom sax mu jooy ndax fonkel gu ëpp isaan moom itam boroom këram sëriñ Moustapha njaay ñu boole leen ñoom ñëpp di leen nuyu waaye it ma nuyu koo xam ni du goro kese kese sama doomu bopp la moo di Aja di soxna capitaine bi toog waaw waaw a na ngi rey rek waaw keroog dama leen tooñ mook Pape Cheikh Sarr bi ma tooñ leen ni leen waaw ndax da ngeen bëgg ay séet maam Cheikh te nga wuutal Pape Cheikh Sarr Seet maam ni ma waaw ma ni Pape Cheikh Sarr yow bu la wutalee seet yow wutal ko seet mu ne akon ah, ñu bàyyi ah. ma xam ne rek kon baax na noonu waaw mu mel ni am na ku nga xam ni yitteem yépp mooy ganaar gi ci kër gi ganaar gu góor la te boobu ba tey amul ganaar yu jigéen yu koy wéttali mu ni ma kon nag jox ma mone ma dem jëndali leen jëndali ko ay ganaar yu jigéen yu ko wéttali ah ma jox ko mone bi mu dem jënd ñaari ganaar yu jigéen ma ne waaw waaw ñaar nga jënd baadu da nga bëgg a am beneen seet mu ne ma ah, mukk yàlla tere waaw ma ne ah yëf yi kat ndekete moom xaw na yéeme tuuti waaye wax la ni dama am xaqiqa bu nga xam ni façon bi ko sunu borom tëralee ku yebu rek di ko bàyyi noonu te dama dégg ci moom mu nettali lu góor gi masa wax fii nii ci champ de course wax ni yàlla sunu boroom ba mu bëggee jigéen jàmm ko daf ko bàyyeek ay bagaasam ndax bu ko bàyyeewul ak bagage yi jigéen du ko mën a jaamu loolu mooy tax xam xaqiqa boobu rekk mooy farata mu mel ni nag assalaamu aleyka ayyuha nabi ñu yónni ñu nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko ci guddeem gile nuyu bu nga xam ni bokkul ak nuyu wolof ay nuyu rekk ba jàmm daan nga déedéet dañ koy nuyu nuyu tëbb bëgg li ko yàlla defal mu tànk ñu ci ndax عليه وسلم digganteem ak boroomam ndax sunu boroom xeeti tasbiix yi ñu koy defal moo xam ña ca kaw ñooy def tasbix bi wala ñi ci suuf ñooy def tasbix bi waaye jamono bu nekk ñu jéem natt li ñu ci recevoir waaye buñ ko nattee dinañu gis ni dafay fees heureusement nag du tuuru lu ci fees ba war a tuuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk ndabam la ca fees ba naroon na tuuru sotti ci ndabam waaye moom itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu amati jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle bi mooy lan mooy ndab bi mu war a def subaxaat yooyu le fekk na ay salaatu jiitu ca ba noppi kon bu subaxaat yi ñëwee fekk fa salawaat yooyu moom itam dafay feesaat ba tuuruwaat heureusement tafidu faydan ala bu façon la Seydi El Hadj Malick waxee ci Taysiir min an nuuri قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق الله looloo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am baat bu wolof di wax baat bi moo di ku la ñaag moo la ëpp reer mais yonent bi Muhammad kenn mësu ko ñaag parce que mësul yalwaat kon lu ko yàlla jox rekk da ko fekk fa mu nekk mu yëkkati ci yéeneem jox ko ñi mu yar sax nanguwuñu yelwaan bu ma koy wax nag waxuma yelwaan yi ñu miin ci mbedd yi am na ku nga xam ni lu kilifaam rëy rëy rëy du ko ni jox ma nàngam bis dafa dal Omar Samb daf ma yóbbante ni daf ma soxla ma ñëw ba ci buntu kër gi wax ki ma fi fekk ni ko waxal bay Omar ni ko ñëw naa mu yow dugg si ci sama oto ma ni ko dañ ma wax ni ma danga ma soxla woon mu ni ma ah, moom day xanaa xalaatu mag rek ma ni ko nu mu demee noonu mu ne ma bu ma sañoon da ngay góor gi nga ni ko bu ma sañoon li la mag ñi joxoon dama bëgg nga jox ma ci ma ni ko man waaw ma ni ko kon de xaw ma sama bopp dafa mujj xàqataay moom bàyyoo ma ni ma man day yéen jaaxal ngeen ñu dara saful waaye fekk na am na loo xam ni boo ko xasee ba xam xamit na mu deme doo ko yalwaan waaw loo tax yonent bi xaarul sunu boroom di ko ñàkk yàlla riire fa mu riire rekk ni ko alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna waaw mu jeex ni ko bu bu ki nekk waroon tax nga sànku ma jël sama responsabilité fekk la fa ma la fekk def la la ma la def jox la it la ma la jox waaw ba mu ca jógee mu laaj ko laaju taxqiq alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizraka alladi anqada dahrak wa rafana laka dikrak waaw ni ko jaaxle jaaxle yi daan ñëw ci dënnu nit ba jaaxle jaaxle yee xatal ko fexe naa ba firi sa dënn ba jaaxle jaaxle yaa amatu ca waaw yéen yi daan jàpp gannaawu nit ba siggi di ko të ko fexe naa ba yenn ya teggil naa la ko ñu ko bu ñetteel bi nag moo di jaratul ngay sonn pour ñu xam yaay kan ndax rafaana laka dikrak waaw ah mu jeex mu xam ni lu muy wuteeti amul yàlla jox na ko yim ko waroon a jox yépp waaw waaye itam ku ñu jox lu toll noonu ci sa biiri bokk te ñoom amuñu ko sa jàmm jeex na taxoon sunu boroom xam lu mel noonu moo tax nanguwul woon yonent bi yaroo ci kër yaayam yàqu bu nga xam ni xale yaroo fa wóoru moo tax mu ne nañ ko yóbbu ca kaw ka fa nga xam ni yàqoogul ñu jox ko xalimatu saadi ne dañ daan jaaxle sax ndax loolu ci xale bu demagul fenn xabaabi shahrayni fil jiimil qiyaamu wa fi daalin gada mumsikal judraani daa himami wala loolu Maodo nee na yonent bi bi ma amee ñaari weer la commencé di raam bi mu amee ñetti weer la commencé di taxaw bi mu amee ñeenti weer la commencé di jàppandu ci mur yi ak yi tëje waaw xadda moom sikal judrani za himami waaw am jom gu day ni lu mu bëgg a boobu ko bëggee jëlal mu bëgg moo koy yóotul boppam ba keroog kon foofu mu commencé la xam kii fi mu jëm fan la waaye bi mu demee ba mission bi commencé ko jàmm waaye ñi ci biir it mayuñu ko jàmm waaye mu am yitteem rekk te déglu boroomam mi nga xam ni moo ko yónni fu mu demee ba xelam bëgg jaxasoo rekk yàlla wàcce aay wax moom léeg daan na dem ba bëgg a salit waaye it yàlla du noppi fasbir li xukmi rabbik wala yastaxifannaka alladina la yuqinuun waaw di ko wax ni ko lu sa borom tëral rek ci biti waaye ñi bokk ci entourage am te bokk ak ñi ci biti xalaat mel ni dañ koy sabote di ko sànni ay baat ko defee mu mel ni dafay xaw a am lu ko naqari yàlla it di dellu si di ko calmer di ko wax inna kafaynaaka almustahziin waaw ñiy sabote bàyyi mag ñoom waaw noonu nga koy firee waaw ba mu demee ba mu xat nag te yàlla xam ni fekk mu nekk biir màkka li mu war a doxal du ko man doxal ndax opposition yi dafa bare te opposition yi mu ngi commencé ci fameem bàyyam bi ko jur dundul ndax bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam ci la bàyyam faatu donc bàyyi yu ndaw yaa fa des waaye bàyyi ndaw yooyu le ko ñu ca gën te defoon ni mooy jël défense moo ko njëkk a jànni jànni bu ñàkk teggin waaye fekk na boobu sunu borom mu bëggoon yonent bi bañ a gëm ay baay yu ndaw ak i nijaay parce que liñ ko yen ku ñu ko yen dootoo àtte sa borom sa bopp ci deret looloo tax ba yàlla seetee ba xam ni makka du sotteeti ci moom mu wax ko ne dem ma Madina waaye booba sax tuddagul Madina ndax bu njëkkoon Yesrib la la tuddoon lor ndey bi ni dafa nar génn màkka dem feneen fas yéene balaa génn màkka ñu éliminer ko waaw wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yuxrijuuka aw yaqtuluuk waaye wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirin waaw ñu ngay fexe maa ngay fexe sama pexe nag man yàlla jig na la di ko dimbale di ko dimbale ba mu rocceeku ndànk mook Abu Bakar pour dem Madina bi mu yegsee Medina ñépp dañ doon fëx